asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñi ngi leen nuyu di leen sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Ahmed Tidiane sek xalif général bu Thiénaba di nuyu sunu sëriñ si di nuyu notable di nuyu population Thiénaba bi yépp euh, tey man euh, Adama Diop di conseiller municipal président de la commission des finances mooy waxtaan ak Euh, moo fas yéene wax ak yéen. li ñuy wax ni tey euh, defe naa ne damay jéggalu d'abord population bu Thiénaba bi parce que mësuñu ma dégg ci yu mel nii waaye tey dafa jot ñu indi ay éclaircissement indi ay leeral ci ay mbir yoo xamante ni ay nit wax nañ ko fi démb tuumaal conseil municipal bi te loolu dafa jar ñu indi ci ay firnde yu leer yoo xamante ni duñ ko teg ci falaa falaa duñ ko wax rek pour bëgg a wax sunu tey ji bàkkan mais dañ koy tek ci ay documents yo xamanteni administratif yu wé yu wor la yo xamanteni mo ëmb nga xamanteni mom lañuy bëgg wax lépp qui mi ngi tambalé ci lettre bi nga xamanteni mom ministre du renouveau urbain de l'habitat et du cadre de vie Yone gouverneur de la région de Thiès monsieur Amadou Sy ci lettre bobu objet bi moy identification de site pour abriter un pôle urbain dans la région de Thiès le gouverneur Bimko euh, ko préfet chez Aline Badara Samb gouverneur ngi euh, ngi lettre le 26 mai 2016 sous le numéro 0925 euh, le préfet jot le 9 juin 2016 sous le numéro 1024 mais préfet nous bon de transmission transmettre nos document à ak lettre ministre bi won ñu nañ jël disposition yi nga xamante ni moo ci war pour bu fekkente ni am nañu site boobu ñu mën ko présenter parce que euh, région de Thiès la ñu wax département de Thiès la ñu wax te defe naa ni maire yëpp ku ci nekk yónnee woon nañ la lii bi ñu jotee lii le maire jël lettre bi waxtaan ak euh, euh, conseil municipal bi waxtaan aussi ak équipe municipale bi d'abord waxtaan ak ñoom ci lettre bi bi mu paree mu ne kon li jaadu moy na convoquer le conseil municipal pour que nous ñew waxtaan ci lettre bi suñ ci d'accordé mom and na ci ñoom suñ ci d'accordul mu tek ko c'est ainsi que le le 20 le 20 juillet 2016 ci le ci le conseil municipal bi ci le maire convoqué conseil municipal bu bi ñu waxtaan bu 32 conseillers ñoo teew ci 46 conseillers nga xamanteni mo am ci conseil municipal biñu ñëwé waxtaan maire exposé leen li nga xamanteni mo moo nekk ci biir lettre bi ak liñ ci soxla ak impact bi nga xamanteni pôle urbain bobu dina ko am ci suñu gox bi akit li nga xamanteni moy le projet bi nga xamanteni c'est cher au président Macky Sall moy émergence bi li nga xamanteni li dina ci bay li nga xamanteni mo ci walam ci conseil bi biñu ñu conseil yépp ñu ña fa ñu d'accord ci ni ñun dé joxé nañu suñu avis favorable pour affectation euh, de terre au ministère du renouveau urbain afin que paul Bobu ñu mën ko def qui ci suñu biir gox. donc euh, délibération bon mi je crois que ni euh, vue sans observation approuvée par le sous-préfet monsieur Bamba Fall Mamadou Bamba Fall donc je crois que ni lolu mi ngi nii ci lolu aussi amna lettre bo xamanteni maire moko bind euh, le ministre du renouveau urbain mom tamé xamal ko ni conseil bi joxé nañu sen avis favorable que ni à ce que nañ len attribuer terre yoyu pour jox donc tous ces documents là mi ngi la lettre du ministre euh, le bordereau de transmission du préfet de Thiès ak euh, euh, l'acte bi nga xamante fait pour donner un pour avis favorable conseil municipal bi lépp a ak lettre bi nga xamante ni moom ministre du renouveau urbain pour xamul ko ni ñun d'accord nañu afin que Paul Bobu ñu teg ko fii ci sunu gox muy Thiénaba. ci gàttal daal lépp jaar na yoon. waaw lépp jaar na yoon fi ñu war jaar jaar nañ fa mais lima ci lima ci déplorer ci lool rek moy li nga xamanteni ñu doon wax jël nañu ay personnalité yo xamanteni ni c'est d'honnêtes gens des gens yo xamanteni vraiment dañu am estime ci ñom ku melni vraiment euh, le doyen Abdou Aziz Diop du Forum Civil mu doon nit ko xamanteni vraiment ñun dañ ko estimer euh, yagu ko suivre aussi euh, muy porter la voix des sans voix di di di di lutter ay lutte yo xamanteni vraiment dañ ci mës and ak mom donc aujourd'hui suñu ñëwee waxuñu ko dëgg waxu ñu ke li nga xamante mom mo moom moo ci ne joxuñu ko benn document ba tax mu waxé ni mu waxé alors doon na lo xamante vraiment déplorer nañ ko te je crois que ni ni ñu ko xamee dina doon ko xamante peut-être dina ñëw jege suñu à la mairie et ñun sax on est prêt à le rencontrer tous ces documents là inshallah allah rabi ñu won ko ko pour que mom mu gëna a imprégné wu ci euh, situation mais ñent dëkk yi ñu wax na ñom la gëna a impacté waxtaanu leen ak ñom est-ce que loolu am na. Euh, le maire en personne ne moom dem na waxtaan ak dëkk yooyu wax leen ni leen suñu ñëwee lépp lu ci aaju ñoom dinañ ko def mais boobaak léegi dañu identifier rek site bi mais kenn ñëwagul ni war nañ joxe impense wala war nañ def nii wala war nañ def nii maire la mu doon xaar mooy ñu ñëw pour que mu ànd ak ñoom ci population yooyu ci chef de village yi ñu woo seen population képp koo xamante war nañ la ci dédommager ñu mën la dédommager ci foofu Mmh. non non tool wala benn nous nous nangu pour non identifier tout simplement identifier site bi d'accord ni war pour def ko ah, mais nous jël na dogal jël na dogal bi avis favorable ni d'accord na pour ñu def ko l'autoroute Ila Touba non non aussi avis on a donné notre avis état bi def ko parce que c'est un décret présidentiel après moom et eh, eh, tax Paul bobu am suñu paré ba joxe suñu avis président day def décret pour paul bobu mena mena am donc ñun on a donné notre avis li ñu waroon def def nañ ko. Mm-hmm. hectares 600 euh, hectares mm-hmm. donc projet wu état bi la mais jagleelu leen ko benn doomu aadama boo xam ne moom ngeen ko jox. te aussi am na ñoo xam ne seen xel leeru nee na dañ ko jël jox ko benn nit koo xam ne Thiès la dëkk. Ah, non non non non projet état la état bi lañ ko wax ñoom ñoo ñu bindoon lettre ñoom la ñu ko délibéréel ñoom aussi la ñu tontu jox leen lettre ni leen euh, euh, d'accord nañu pour ngeen def ko fi mais jox ñu ko benn doomu aadama ñooñu nag bu fekkee yónnee nañu ay nit pour ñu ñëw xool <laughs> donc ñoom ñoo yónnee nit ñooñu. waaw ah. mais ñun joxuñu ko benn doomu aadama mais ministère bi lañ ministre bi lañ ko jox. moom mi demandé woon waaw. waa léegi yéen askan bu Thiénaba. ñoo leen wóolu dénk leen. Euh, boole jël maire Talla Diagne teg ko si bopp conseil bi. ngeen yëkkati ay coow jib léegi lan moo fas yéene doon seen taxawaay donte yéen jàpp genn ne lépp si yoon ngeen ko teg. waaw su lépp ci yoon lañ ko teg mais suñu taxawaay mooy lan delluwaat ci nit ñi toog waxtaan ak ñoom. doolee waxtaan ak ñoom parce que defe naa ne aussi bu fekkente ni yow yaa ngi liggéey bëgg aussi sa gox jëm kanam jóge fi mu nekkoon dem fi nga xamante ni foofu la gox yépp bëgg a egg mais am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi topp say tànk di gas loo gas ñu suul ko moi je crois que ni ñooñu aussi yàq moo leen jógal mais nag dañu wax ni euh, euh, addu kalpe bi li mu ko jaral pour jël sa kalpe su la ko jaralee yow sa kalpe du dem je crois que nii kon ñun dinañ ci taxaw taxawaay bu ñu war a taxaw dinañ ko def dem ci population yi waxtaan ak ñoom leeral leen ba ñu gind ko ci mbir mi waaw. Euh, présence su Civil lan la leen déranger parce que Abdou Aziz Diop si kàddu yu ñoom dañ ne ñëwuñu fi pour arbitrer mais dañu mm-hmm. xool. Mm-hmm. lépp loo xam ne fa la dëgg bi war a mm-hmm. ñu jàppale si population. très bien lolu moñ ci dérangé parce que fa la euh, fi deug bi wara fété moy Abdou Aziz Diop do nañu préférer ñun bu déglo ñoñu ba paré mu ñëw ci mairie bi. laaj ñu ñun lan moy suñu problème quel est le problème. lolu amul il n'est pas venu ñun lolu moñ ci dérangé ak ni ñu xamé Abdou Aziz Diop. c'est que lolu moñ ci dérangé bu ñëwoon fi tay ñu wax ko li ñu koy wax bu paré nak bu analyser ba paré wax lolu ñu xamné kon lolu gis waaw lolu moñ ci déranger Euh, ragalu leen soubassement politique parce que ñenn ñi jël kàddu yi foofu am na ñoo xam ne aussi yéen bokk leen parti certes ñu parti mais nak euh, je crois que ni li ñu boole ñun ñëpp moy gox bi moy cianaba moy cianaba parce que cianaba ñoko bokk te mënuñu koo séddoo ku ci nekk li nga wara def moy indi sa pierre maire bi bu démé indi keneen dem indi bu yagge je crois que ni développement bobu émergence bobu dina am fi mais nak bu féké nit bu indé yow nga ñëw di yàq. lolu lolu lolu amul sens amul sens te duñu yobbu fenn donc je crois que ni li ñëpp war def moy ku indi ñu tok waxtaan ak yow la nga indi ñu seet nan lañ koy défé ba nga xamanteni askan wi yëpp permettez-moi de saluer les téléspectateurs qui nous suivent mais aussi et surtout le calife de Tianaba, euh, les marabouts et les notables ainsi que toute la population de la commune. Euh, je m'explique m'excuse auprès d'eux car euh, ils n'ont pas l'habitude de me voir ou m'entendre sur certaines choses, mais il s'agit aujourd'hui de rétablir la vérité, d'apporter des éclaircissements sur la base de documents administratifs pour ne pas se lancer sur des allégations sans fondement aucune, comme l'ont fait certains hier que Dieu nous préserve des propos qui pourraient déranger certaines personnes. Qu'est-ce passé réellement euh, Réellement, euh, pour venir au fait, tout est parti de la lettre du ministre du Renouveau urbain de l'Habitat et du cadre de vie qui avait adressé une correspondance au gouverneur de la région de, de Michel M. La lettre que, vous voyez ici, c'est la lettre du ministre. Donc, euh, qui demandait l'identification de sites pour abriter un pôle urbain dans la région euh, de Thiès. Après cela, le préfet Alun Padrasam nous a envoyé la lettre par le bureau de transmission numéro 1024 du 9 juin 2016, que nous avons reçu le 11 juillet 2016 et enregistré sous le numéro 550 ici à Tianema. Et des réceptions, euh, le maire le maire, après avoir euh, pris connaissance du contenu de la lettre, où il est mentionné que la région de Thiès a été ciblée comme pôle prioritaire et qu'un projet de pôle urbain est envisagé euh, dans le département de Thiès, a pris toutes les dispositions nécessaires et en concertation avec son équipe municipale a jugé nécessaire de convoquer le conseil. Ainsi, le 20 juillet 2016, le conseil municipal s'est réuni avec 32 conseillers présents sur les 46 que compte la commune et a émis un avis favorable pour l'affectation du site devant abriter le pôle urbain euh, et ces terres seront affectées au ministère du renouveau urbain. Après avoir mesuré l'impact de ce projet sur l'emploi des jeunes, euh, mais l'émergence de notre localité. Alors, un acte a été établi sous le numéro 4 du 20 juillet 2016 qui, dans son euh, article premier, dit, je cite, le conseil municipal de Tchénéba, en sa séance du 20 juillet 2016, émet un avis favorable pour l'affectation du site au ministère du Renouveau urbain. Ce que je regrette vraiment dans cette affaire, c'est le fait que euh, ces gens ont abusé de la crédibilité de certaines personnalités qui d'habitude défendent des causes justes et portent la voix des sans-voix pour les rétablir dans le droit. Une personnalité que euh, moi personnellement j'estime beaucoup et que j'ai toujours suivi de par sa, sa grandeur d'esprit, mais à qui on n'a pas dit toute la vérité, mais qu'on a, a induit en erreur, en l'occurrence M. Abdou Aziz Diop du Forum civil. Euh, encore une fois, je crois que je présente toutes mes excuses si j'ai heurté certaines personnes à travers mes propos. Vous pensez que le Forum civil n'a pas tous les éléments d'appréciation sur ce dossier-là euh, Non, c'est ce qui nous dérange parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Parce que euh, M. Abdou si vraiment il a été reçu par l'autre camp, il devait aussi venir à la mairie pour s'inquiéter de la situation, demander au maire ce qui se passe. Comme ça, on aurait pu lui donner les documents nécessaire et je crois qu'il n'aurait pas parlé comme il l'a fait. Mm-hmm. Euh, peut-être ce qu'il a un peu déploré également, c'est la non-appropriation du projet par les populations impactées, notamment les, les quatre villages. que vous euh, Non, je crois que euh, hier, il n'y avait pas les villes et les chefs de village qui étaient là-bas. Ils ont réuni quelques personnes, quelques personnes et ont fait leur show. Mais je crois que nous, nous avons parlé avec les chefs de village, nous avons parlé avec les responsables qui sont dans ces villages-là. Et je crois que ni, ils ont approprié ce projet. Et pas plus tard que hier, on a rencontré le chef de village de Kerkhardi qui a dit clairement ce que j'entends euh, soyez assuré, monsieur le maire, que moi, je ne fais pas partie de ce camp-là. J'ai parlé avec toi et je maintiens ce que j'ai dit. Donc, je crois que ni, bon, c'est des gens, comme je l'ai dit, qui sont là pour <laughs> leur propre intérêt, pour dénigrer peut-être le maire parce qu'il leur dérange ou bien. Justement, un projet de l'État euh, qu'on vous fait porter, mhm. est-ce que vous craignez pas de, disons, de répercussions sur la gestion du maire Taladian euh, à travers un possible bruit Bon, peut-être, bon, il, cela peut se passer, mais quand même, nous allons, nous allons parler à toutes les éventualités parce qu'on est en train de parler, on a, on a des conseils aussi techniques et juridiques avec qui on est en train de parler et de voir euh, les tenants et les aboutissants et comment faire pour vraiment accueillir ce projet-là et, en faire profiter à la population de Tchanaba euh, pour euh, recevoir tous les retombées possibles. Voilà, on a estimé 600 hectares pour ce projet. Le Conseil a déjà voté. Et on a donné un avis favorable. Et on attend le décret présidentiel pour que ce pôle-là soit réalisé. Yann Indi en tant que premier magistrat bu commune bu Thiénaba. waaw jërëjëf Babacar salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu bokki Sénégal yëpp di nuyu population réseau Thiès département Thiès commune Thiénaba euh, di sant yàlla bu baax xam naa boo ma posé wuloon question bi tey du ma jël kàddu. parce que nag li ma dégg démb conseil municipal bi moom la ñu tuumaal loolu moo tax ma maandu bàyyi conseil municipal bi tontul boppam projet la boo xam ne euh, ministre bi bi mu koy bind maire yëpp la ko bind maire région Thiès yëpp parce que pôle urbain bi pour région Thiès la mais bi nga xam ne préfet convoqué kena ñu daje kees man avant may dem yëg naa ni euh, projet bi fi ñu pour ne commune bu am site bu mel parce que lan motax projet bi du sori caisse mais day ci bi mais day côté droite amna commune bu ak man site bu day non mais da fek da côté gauche da nga xam da ngay site bi pour nga bi. ministre bi comme niko adama waxé euh yalla dafa dogal ñu convoquer conseil municipal bi. waxtaan ci ak ñoom mais boobu domine sax duma ci dem parce que aadama jaar na ci ba pare mais li andi lii problème politique la lan mooy problème politique ñi nga xam ne ñoo organiser lii du du population bi wala baykat yi wala borom tool yi ñoo ko organiser yo yoo xam ay opposition lañu di contre conseil municipal bi di contre état bi di contre président Macky Sall mais ma contre man maire bi ñoo ko organiser mais du loo xam ni dañu ko gis mu jëm ci askan wi te baaxul ci askan wi mais projet bi laata ñu fay dem di wane ab site mboolem chef de village yi muy chef de village su euh, Kër Xaar Jéey di chef de village su Anta waxtaan naa ci ak ñoom ak ki nga xam ni moo nekk Mbayeen nekk amo ci Bagaaj bi yàlla dogalee ñu waxtaan ci ak ñoom ba projet bi. am partenaire yo xam xalat na ni war nañ ci mëna ñëw mais partenaire soko ko proses am fumudem? projet projet mais projet bi amna fu mu dem mais xana bala jéggi ben pa dina xol ba xam kéra bi préparé pour dem xol site bi ñom ñëpp téléphoné na leen ñu taxaw ci site ba di ba xaar am ñu ko fekkee ño xam ñi ci mbolo mi bi ñu démé ñu wax leen ni man majil jël sama cadeau may leen ñi ñëw tay dañuy xol ba xam site bi amna wala amul mais jappu len ni yéen borom tool yi lépp lo xam ne aju na ci yéen parce que yéen fi doon bay ku mom suuf amul yàlla mom mom suuf suuf état ko mom mais su fekkee ne yàlla dafa dogal projet bo xam dafa jóge ci état te am fu mu dem obligatoire buñ ko fee def den waxtaan ak ñinga nga xam ne ñoo ran suuf di ci bay bax lépp lu ci war man may sen défenseur dina ko lijeenti ba kenn ko ci nek la nga ci doon am Don teral sa njabot wala di ci tedd di nga di nga gis lo xamni mo la ëppal njariñ lola ñom ñëpp ñu ni kon d'accord na mais amna ci chef du village bo xamni boole nan ko ci ba def signature mais démb rek neena ma ki signé sama place togn na ma te bu woon affaire mbok man naa jur leneen parce que nit bo dé signé place am mais day fekk mu jox la ndigal mais lolu amu ci démb bi ngeen fa démé gisulen fa chef du village ko gisu leen fa chef de village super Xaar mais mbir balam ko coow da ngay yar sa alal ñu dikk jël ko bëgg la jaay doole wala nga dégg ñu ne ñu jaay na benn mètre ñun ñoo jaay benn mètre. lii nag jëkkul tey ña ko doon def ñoo defaat muy contre ñu fasali ne yàq mais danoo tekkiwul dara ci commune bi parce que nit mënoo nekk opposant 25 ans ànd ak état 12 ans muy 37 ans te tekkiwoo dara fa nga nekk. nit ñëw toog amagul 5 ans ngay la ma def dama koy yàq mënuñu ko yàq seen xalaat la nu mën a def ak ku nu mën a àndal laa wax ak ku leen mën a jàppale seen xalaat la nu mën a def mais mënuñu noo yàqal dara parce que ñun li def ci yoon lañ ko teg en tout cas nag ñun population bi moo nu falan population bi lañ fi nekkal lii nga xam ne moo jur coow nga xam ne ñoom danoo jaar ci suuf dem waxtaan ak ñoom parce que mbir mi ban ko jàppee du tey doon démb mm-hmm. jëkkër nañ koo jàpp mais danoo amul woon fu nu teg seen tànk parce que lan leen doon wax dégguñu ko woon mais lanu leen naxe ba tax ñu def lii démb mais li aadama wax rek borom kalpe ci poosam lu mu jaral àddu kalpe pour jël ko su ko ko jaralee moom mu nekk ci poosam te liggéeyeen ko yaakaar naan kalpe bu dem loolu nag dinañ ko jaral parce que population bi suñu population la dinañ leen gën a yee gën leen a xamal li nga xam ne moo xew parce que lii dañ leen a nax bëgg leen a yàqal mais projet bii nga xam ni Sénégal gépp ñoo ko bokk askan wi ñoo ko bokk même man bu ma meer bi bu ma bañan te mu baax ci askan wi mënumaa tee mu am. lan la fa nguur gi fas yéene def. waaw xam nga ngóor gi li fi fas yéene def mooy ku dem jëm ñaaja amatul laajte. Mhm. xam nga yi la nekk jam ñaaja boo ko masaa romb ay ay ngejj rek nga fay mais tey boo fa demee di nga xam ni jam ñaaja euh, am na beneen molokaan loolu nekk jam ñaaja moom la bëgg indi andi commune Thiénaba parce que dafa a raison bi maire ñu bind leen mais li nga xamni ne lañ soxla commune na moo ko am kon ñun mënagunoo xam lepp parce que bari pas yo xamni pour nga xam ko da ngay dik bam placer mais barki dem rek benu maire euh invité ñu dem fa benn usine ban fa def rek jël na 300 femmes 300 femmes vers où fay la kenn ko na 100000 francs mais amul njariñ mais yow nga yar so xam ay guerre ca téeméeri at ba léegi mu amul menn at moo xam ni mas nga faa bay jëlee fa sax lu mat 500000 mais soo gisee koo xam ni mën na faa liggéey nga fay liggéey sa njaboot di fa liggéey nga fay am teraanga mu mu mel ne nu mu melul woon mais doo sant yàlla mais jamono day dox mais boo demee Ndakaar Babacar mais fa nit ñi dëkk ay tool la wan. man sama maam aman na fa tool ndax man na maa dox bari fii sama maam a ko bayal ndax avancé gu Dakar avancé boo dikkee biir kees ay tool la avancement moo ba dit avancer nak moy mom la ñaan yalla muy avancer ba dugg Touba Mbacké parce que nit day am xalaatu ëlëk mais duma dem te kenn du dem mais coxor la gis nga gaay organisé li danoo soxor mais li leen taxa a soxor nag mooy danoo tiit te danoo parce que danoo yaakaar ni li nga xamni moy ay résultat yi am fi ni amul woon am musu fe am bo demee ni rek ci ginnaaw ci di dañu fa fekk ben satadoo man mako fa def bo diké ci buntu maire bi poste bi fi nek ci man la mako fi def bo debé fi ci ngomeen balla projet 100 hectares bo xam sa buñ ñu xëyee lu nit ci commune bi dañ dem liggéey am ca dépasse jox seen jabot ma nga fa ci man la ci ci la jaar té ñom mësu ñoo def lenn lo xamni nit ma sa ci am njariñ kon lolu su dé am il faut ñu iñaanal ñuko électrification ah mboolem dëkk yi ñu wër dëkk bo fa dem poto poto yaa ngi sampe fiil yaa ngi lonke mais lolu nak lañu yaakaaran ni conseil bi fi nek ñu doon xex bañ ñu tok nu toogee du ñu am résultat résultat boobu nag commencé na am ñu ne nan ko yàq ba sunu mandat jeexee du ñu am lu wax mais loolu passé na parce que li xës am ba pare kenn mënatu ci dara yàlla mooy fal doomu aadama nag mën na am yéene mën na am xalaat mais dama ne soo dee ab jullit te am xel xam nga ne même ab xer yow boo ko sampalee sa bopp doomu aadama boo sa sampalee boppam nga di ko yëgal day gën a dëgër sos tubaar ak samp suñu borom lii suñu borom moo ko dogal li suñ borom dogal jaam day nungu ànd ci. kon léegi yow sa politiciens yooyu nga yaakaar ne dañuy jàkkaarloo yow ci ban terrain nga leen xaar. ak la ak. la ñuy jaaraat. waaw jaaraat. jaar nañ fi jaar fi jaaraati ma xalagal leen. premier tour ba bisu te gis nga ñoo ñuy wax amul ci kenn koo xam mas na ci ànd ak président Macky Sall ak ñi leen di jàppale laa wax de te am na ci ñoo xam président Macky Sall jox ne leen ndombay tànk. mais du premier tour du deuxième tour du référendum du euh, euh, élection locale du ben élection Bo xamni xana élection locale bi passé ñu fa précipité affaire jox leen ñom ñep man nak leen kenn détu jox mais nit da ngay liggéey ci terrain bi mais waxi kese ak yàq ak bok ak jaxase ay doom aadama mais du may ci nit dara dama la ne Serigne Cheikh Tidiane aw jàng ak xam-xam du benn man ngaa jàng ba yëy jël téere yi boo génnee ay ay ay gejj nga yëy parce que tekki woo dara parce que xel ak xalaat ak xol mooy liggéey nit xam-xam ci xalaat ci xalaat la ne mais du tiim ay këyit di jàng da nga koy nettali am na ñoo xam ni ba ñeen dugalee noonu école ñii ay ingénieur lañu ñii ay ministre lañu ñi ay député lañu waaye ñoom du ñu passé mukk mukk ab jàngalekat boo xam da ngaa retraité amatoo foo jëm mais mais da ngay da ngay gëm yàlla. te pare nag mu teg ci li muy yàq nii mu teg ci. dem ba ndindi aan di leen wax ne ne am naa projet boo xam projet mbay la bindu leen ma andi leen ko ñu financé leen. Ah, xam nga xam nga dañ ni maire. xam nga dam ni maire. maire tur la man la. kon damay tudd seen tur. damay tudd seen tur. ñoom laa ne ñoo tekkiwul dara. am na ci ñoo xam ne du ñu xëyee lu dul amuñu métier politique du métier. man dama am métier lu ma duggee dama koo ñàq lu ma defal doomu aadama dama koo ñaq damay bay damay sàmm damay commerce damay transporteur la kon coow li moom yëngalu la. mais dafa mooy li doon yëngal du mag si fii. li li passé moo gën a métti. yëguma leen sax am xam nga ku ma teg bët président Macky Sall. jërëjëf li mu bëggee dina am fii ci commune Thiénaba dina am ci département Thiès dina am ci région Thiès incha allah dina am deuxième mandat seen xol di gën a dagg bu xasee jeel nag lu am rek baax